صلاة لسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العبس والسفر salaamaaleykum bayitu bis bi fukkeel bi numéro ak benn ñu ci ànd ak Serigne Fallou Galass Sylla sunu bayitu tey mooy li nga xam ne Serigne Touba waxal na ko boppam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat moo dem ba ci boromam subhanahu wa taala mu sàkku ci moom na ko ahmadou bamba mi boolee kook man mu nekk ku may liggéeyal raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi ana lan la sëriñ tubaa na ma jukki ci boobu bayit raama rasulullahi min ilahi man yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na moo sàkku ci yàlla man sàkku ji ma ko de nee na yonente bi moo dem ci yàlla sàkku ko talabta rasulullahi nee na yonente bi moo ko sàkku del wax ne raama rasulullahi min ilahi kaw nii ma nekk man ahmadou xadiimuhu di ko liggéeyal waa Abdullahi di jaamu yàlla kon yonent bi moo déplacé wul boppam dem ci boromam na ko Ahmadou Bamba laa bëgg mu nekk ki may liggéeyal doon sama jëwriñ kon yaakaar naa ne di wax waxi sëñ Tuubaa lu leer nañ lay doon loolu nag lan la jural sëñ tubaa lan la jural sëñ tubaa dañ koy tëj ci suñ baytu baytu bis bi li mu jural sëñ tubaa mooy yàlla nangul na ko ak njaamam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu ko muy jariñam yàlla na ko nag kon yi ma bindoon te bëgguñu jaamu ma te seenug jaamu ma tut boole naa la yëpp yow Ahmadou Bamba may la ko moo tax mu ne mallakani dunya wa uxra samadu maa hindahu mu muhammadu yàlla moom loo na ma àdduna moom loo ma alaxira tànnal ma yonent bi alayhi na ma li gën ci àdduna ak alaxira teg ko ci sama euh, tenq lii ba ba àdduna tukki sama loxo lekk te duutu fi jóg kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di balu ak ñëpp di leen baal ak di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi gën a yàgg gën a dolli ak wéram ñi jëm si Touba ñëpp yàlla na leen yàlla indi ci jàmm bu yàlla bu kenn indi jàngoro yàlla bu kenn yóbbaale jàngoro yàlla na àdduna bépp ne ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Fallou Galass Sylla jox dig daje incha allah ëllëg ak jàmm في سفر حماني على ماني ما لبس واستفر